maa xam kutut maani faram ne ñeenti mbir nga fay tamit mbee taraa la mu ne ñu ngi leen di ñaan si hakkiloo tuoto ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax gouvernement o mu ne gouvernement a jaw folo mu ne ki nga xam ne mooy noonam bu njëkk kuunaane ñeenti la de o kuunaanoo ñeenti noonam yooyu arabul saafoole ñun la arab yi di wax al ananiyatu al ananiyatu anin nahaniyatu al nahaniyatu an wal indiyatu wal indiyatu anin waladuniyatu wala waladuniyatu ananiyatu mu ne al ananiyatu ntele mo karsati mu ne mooy nga fëgg sa dënn man maay diw postu karsaɓe ntere bulu man maa ko yore ntele maral militaire ol la maa jiite bi ntele su kuwo bee kenoo li ñu neex mboole ken la ñuy def o fana laban ningira ko fu muy mujj xala koolu alaka rek anin goɗo bii mu ne ak wala tey ñun ñoo yore alal bi min ngan ndiya lu ñu neex mboole kela moom la ñuy def ci alal ji wala ban ningira mu ne ko fu muy mujj xala ala ko rek anani njaw mo ñentel bi man si ndilam man soti bi tay man ma yore nguur gi may bur mi ngeen ndiya lu ma neex ci sama nguur mbolé kela mom lay doxal ñu mbaa kutu naanu mu ne ñeenti yi ñi xam gouvernement siaman mu ne lii dafa kasaara gouvernement yu bari de gouvernement siaman gouvernement yu bari li mo len yaq a folo mu ne bu ci jitu iblisa folo folo mo ne iblisa bu ñeuk wala folo xaf sama yi tan mo ñeuk woné ngeenel da fam folo tema ci diggante ñaari mbindef wala hatta atallah lak ñaar julaata daafem mu ne moo tax yàlla nem ko alakee mo gëna metti ci alak yi nga yalla ba sa alak ako alay mo ne ya Iblisa dafa ne yàlla. ana xayrum minhu. ana xayrum minhu. xalaqtani. xalaqtani min naari. min naari. wa xalaqtahu. wa xalaqtahu min tiinin min tiinin. ako ah, ala ye mu ne Iblis dafa taxaw jàkkaarloog yàlla nte tuubi la mu ne dum nte nte sugri la mu mais dol mukk adama ye adama ntel la alabatoo siyataati maa ko ëpp li ma jaamu yàlla ayen tara janne fii la ma fekk ntel la alabatoo fanan siyataati maa ko ëpp tamit li ma jege yàlla ala na fi samanteya mu ne ngënalu yàlla nag aye ban wala la moom la Iblis bañ ilan may jam mu ne sa yàgg fi ilan may ak sa ñàkk yàgg fi ala xam moo mun tam bindi ki nga xam ne moom la yàlla jiital ni man songo ma soo ko nanguwul man song ala la ma kon nanguwoo yàlla a ko ala ye mu ne yàlla nte sujudu laa ye du ma sujudal aadama parce que nte le fi sama a que maa gën aadama yaxamte daa mu ne maa bind dimbaale la safara nga ma bindee yaxaate daa nga bindee aadama boo xoole la suuf ay ban afa sujudi la mu weddi ne du sujudal aadama ay ala soosoo mu yàlla Ah, wala haatu moo tax nag ala halgi ñaajowo yaata li nga xam ne la ko yàlla alake moo gën a bon a siyaada fi mo yeneen yi ci mi def yëpp moo ci gën a bon alakaye yàlla ne ko فاهبط منها فاهبط منها فما يكون لك فما يكون لك أن تتكبر, أن تتكبر فيها فيها فاخرج فاخرج إنك, إنك من الساخرين من الساخرين على كاين يلا نكو لمن دا لما بين سما لوخو مبلول سي سما لوخو ني يامري ما دوخ لا ديغال كوي سجوداي لا سجودال كو كوي كلا خفيسا وتي غانا كوكو ياكو كو فونتي خار جانو ني كون генال الجنه بي دانكورو كونو ياغي سي باو يفا ورالي ndax داغا ري ريلو reylu ورالي داغا ري nga rey مو هو بيتو mo ياري وات yaari يا غنا توتي نك tuuti لما بيند lama bind oto yi si hakkilo to to ba loolu ñu bàyyi ci xel fawro man ya yàlla bëggul ko yëkkati boppam de dara alquran ko la yàlla dafa ko tilka daarul aaxirati tilka daarul aaxirati naj'aluha naj'aluha lilladina la yuriduna la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad wala fasad wal aaqibatu lil ko yàlla ne dunya nin ma mum bigee xéewal yi ci nekk moo maa boo dama ko dencal ma ji laal ñi nga xam ne suufel seen bopp kon wàccee leen seen bopp ku ku maari mbaalum am solo la ku ma fa la ñëw mu ne ñaareel bi ntelu mu ne ñun ñi ci sembo tigol ñun ñooy doole nag bu leen di doole lay loola kilo tigo ngeen bàyyi ci sembo mu doole alal ko yor de xamun diima lim la jox ni ba barandira boo ko jëfandikoo ala ha ni ko yàlla bëggee ha ko ko noonu sa bàyyi ko mu Saba waa Saba dañoo wax ne. Bilqis la ma xoolu. Bilqis de waa kër Balqis yi. beneen Souleymane la kii laa si tiim. mu ne bi nga xam ne Souleymane yónnee na leen. ak iko. lan lañ wax. xaalu. dañu ne xaalu. naanu naanu. uulu quwwatin quwwati uuli baasin. uulil baasi shadidin shadidin. wal amru wal amru. ilayki ilayki. fanduri fanduri. maada taamurin taamurin. akoy yéen kaa yéen. mu ne waa Saba dañu wax ne. Eh, président. président nga. Balqis hariman si hariman si la. bu ragal dara. sembo bentel lale ñun ñoo ëpp doole Souleymane mun diyaatee yéen lépp lu le neex afoññe wax ñu ko rek mbaa kelale danañ ko def ilaw kumo sabula mu ne seen wax jooju sabam sembo ti gooti ñun ñooy borom doole ji alay halak yàlla alak leen to moos yi hakkilootu mu ne kon ñu bàyyi xel ne afa kon tel tamu sembo man maa yore doole gi sembo ti goomu alat doole yàlla ko moom ala ko yàlla ne alquran ko ci biir alquran awalam yasiru awalam yasiru fil ardi fil ardi fayanduru fayanduru kayfa kana kayfa kana aqibatu alladhina aqibatu alladhina min qablihim min qablihim kanu kanu ashad ashad minhum minhum quwwatan quwwatan wa asaru wa asharu arda arda wa amaruha amaruha akthar mimma amaruha akthar الظلم معمرها وجاءتهم رسلهم, رسلهم بالبينات فما كان الله, كان الله يجلمهم, يجلمهم ولكن, ولكن كانوا, كانوا أنفسهم, أنفسهم يجلمون يظلمون hakkilinta ngeen la bang mu ne ndax a amu leen xel mun bee wasu kan ci kañ seen bopp ibe ibe ci seen doole moomul yee saawañ bankoo ñu kan mu ne ñi leen jiitu woon ci kaw suuf sii mel xa seen boo sotee ñi nga xam ne borom boo leen ñoo leen ëppoon aad aad la muhodu wàllu ñu mel ni ñoom waa aad hata bula samud a ngool ñëw ci waa samud wala sembu warteti ñoo leen ëpp doole wala wala sembu waroo mu waaye seen am doole googu yëpp nag ye bankoo mara dañoo denc réew mi buñ njambaalu loo tabax fi ay étage ye senoolu kee bay fi woniro sembo mum e bee ak gandak sen doole yo yëpp birin alaha annabi on mo kiika yalla yonne ci ñoom yonent e annabi on mo soso ñu weddi yonent ya ala ye halaki yalla alak leen halaki yo mun na alak goo xam ne min jawyaata boo xam ne mosukta mel bu mel ni war alak bu gën a métti oto daafo moo ñanta kawandila de mu ne kon nit ki da nga war a waaru gouvernement o mun naata gouvernement bi ñëw nii isañil noon ngeen xam ne i nganta baara la de da nga war a liggéey nii même baara soo liggéeyul ima exemple yoo taa jëloo exemple mbir tan bi ta jang si ñi weesu mi yee ñi leen jotoon wala bee soto moo lay jot yow it eh, kumoo kumoo saba njango mu ne ñetteel bi eh, xaaruna la kumoo la mooti ñette waxu xaaruna la xaaruna xaaruna wala ko moo wax ne nefeere sama eh, pexe wala xa godoo si mbul la sama pexe moo ma may li ma am oto mu ngi xan diyaa godoo to kon li ma neex ci sama alal mbooloo ke la ji moom laa ciy def añum ah, fo mu wax ne ako innama innama utiituhu ala ilmin ala indi indi ñun fen fen naa bente bulu lépp loo xam ne jot naa ko m fawla dem loolu yaa simma sama xam-xam ma ko jox ani m fawla sembo ak sama pexe ak sama doole alakaay yàlla ne أولم يعلم أولم يعلم أن الله أن الله قد أهلك قد أهلك من قبله من قبله من القرون من القرون من هو من هو أشد منه أشد منه قوة قوة وأكثر وأكثر جمعا جمعا على كاين مو في البنت بارك يلا نقول لك واخ رير على في البنت تامان سيرو سويت لولو تتل موي فاما ني لون ما نداخ داغا خم على مول حلك لي يلا ألكنا أي نيت ميرو ساوانتا نيغا خم نيو جيتو ناسيون سيامول تو ناسيون جيتو بري واسو بيغا خامي ني تاغ نين سن بوب كولا الله خامين كيي تي nangu ñu gërëm borom subhaanahu wa taala ci mbaaxam bi mu leen defal kon ñu bàyyi xel ne alal naafuloo alal نيمورم خي ولا دي كوما قالو كو بروم خام خامي دانيو واخني فالمال فالمال من نعم الله من نعم الله تعالى تعالى على الابد الابد تكتسب به تكتسب الانسان الانسان والشر وهو امانه عنده فالاعانه بنعمه الله على معصيته على معصيته خايه الخيار نافلو مو الله هننتي على تي من على الجيري خيول يالا لا دي على بادي دي ما من يالا ماكوي جوخ نا ها ديما بلوكو جوخي اي لافت مننا لي يالا بغ هو كيجي دا دافتي لولا من داف مننا لم بغول كانو كيجي دا باي لولا خا ايفان ديما من نغا ديمبلي سا بوب على لا نيمول تي خيول بروم بي اك دنا فودور تي الله اك تا لون دور تي با مو خام باكم خام فام لوم مونا دون كيف ندير ما ولا ديمبل تي سبوب انا كنتو الباروكا غا باي دي ليغا خامن موم موي لو نيهول يالا انا نيت ياكو الباروكا اك ليغا خامن موم موي بانيهو بكان ادون الله من ديما تي لي لا يالا جوخ كارف رافيو لو مو ندينكان لا سالون كو ترايزون لو مو غا خامن ترايزون لا ترايزون موم اوسي ترايزون ويسو الا يا تي يالا خا الا لا سيمبوتا جيل الالو يالا جيل دولا يالا حاجه انا كنت انا وات موي كو يالا دونك موسي حكيلو توتو مانا ني باي تي خيل دي ومو كو فانا مو كولاتي مانا لون بير لا بو خامن مول ما مون تنتو لو خامن غيرمو ني الا فانا ما تنتو تي يالا yàlla gërëm ko ku moo naa ni njaw mu ne ñeenteel bi moonante hakkiloo to min to mu ne li ñu war a bàyyi xel iblis firawna la ku moo la moo mu ne loolu waxu firawna la firawna laa foo firawna ba mu waxee naada firawnu wa naada firawnu fi qawmihi fi qawmihi qaala qaala yaa qawmi yaa qawmi alaysa lii alaysa lii alaysa lii alaysa lii firawna kalamo hooli mone firawna dafa wax nit fomtele manke président oti ndu man maay seen njiit fomtele manke ñaatongoti ndu man maay seen président fomtelente kaar saati ndu man maay diw fomtelente kaar saati ndu man maay diw sontana mantara sigiring man maa toog daroru bor lankoto eh, dex di daw sama ron min ham diya bi lu ma ci neex mba mbakila ma di ko defte albasila na munala lu ngeen di ragal alhayi taala yàlla won ko ne af ko sembo ci goomu alalti ne doole ki ko omma yàlla aya halaki jiyo kono mu alak ko ci géej ga daafe man halaki woña mosta alak ku mel ni kooku oto ñi ñi ñi mankutu naano mu ne kon ñeenti melokaan yi moo si hakkilo toot bàyyi ko ci xel de ñu telefe samante atiti maa la gën ntele fo samantatete maa la gën ntele lom sombo tigol ñooy borom doole ji ntele mna fulo tigol ñooy borom alal ji ntele lom mansa keeti ñu ñooy buur ñu mu daaji gojow balle ñeenti ñeenti yi wasuñu le ko ndamoo fi man solo fo nesiamu yaa siima mu moo tax nga jot ko yow tentu jee ma nga ko ci ya baana ñu maaki nga def jëf ju baax sugulala ko woykat bi dafa wax ne ako as sukuru sarful abdi sarful abdi ma awlaahu ma awlaahu mawlaahu mawlaahu min nu'maahu min nu'maahu fi ridaahu fi ridaahu ako pour que ala tentu mu ne ngir gërëm yàlla ala ye nee moom mu ngi koy ngir sant yàlla ci xéwal yi mu defal yow bee dépensé nga dépensé ko ci alal bi ñëw kuwal ko ci li nga xam ne moom la neex yàlla ala sago anab sago gannaaw yàlla seen sago ñu maankutu naanu mu ne ñeenti yi isi hakkiloo tuyi ñu bàyyi ci xel de opposition lu fanaan mu ne opposition yi yee yee dee nañu noppi opposition yaa manqué ñeenti mu ne opposition nekkul ngan ne jago yaa soxor mu ne ma ngam ne jawaati lan mooy soxor moo man sigi folo kii toogagul ibe piesol laala woye tegal ko ay ndëgg saraxal pour asi échec o sotono ngir mu am échec itamam banko kanu mu ne yow bëgg réew mi soppoo ko ñee banko kanu boo soppoon réew mi lon doo mum beebulu xam-xam bi nga am ani lam ne ñimmaw ak euh, mbaax xol bi nga am i bowle dilamansa ke moom ngay jël jox ko nguur gi pour asi réussir noo a réussir parce que banque réussir to le la nekk bari a jàng dé fongole yeng mo ne xel ne ñimma ke yéene yéene ko baax un mo loolu mun bee budu xam-xam bi nga amee président o kafun dawal nga yokk ko ci président maanaam son bu nanguwul la yene opposé nga ñëw opposé na itam du sigé waaye yaa ngi toog critique ka mul rek ka wol daabu la nañ bàyyi loolu daaji gooñu maat mu ne mu ngi woo ndaw yi ñi sabaroo kan ñu muñ anum muñoo ñu muñ banko ñin ko di tigan bii de mu ne tey xaalis amu fi de banko ñing mu ne réew mi tey yaa bee suñu yàlla de xaalif yëpp yóbbu nañ xaalif bëri tijaan xaalif benn nekku ñu nekk nii financement problème wala benn mu ne dañoo am problème financement ñi lépp gouvernement ku too nii amanke ah, koy ngara ko do mun mooy bel kenn ku ne li nga mën nga taxaw ci gouvernement aussi ne maa si mu ne ñëw jàppale la ibam manqué riñ jam fi nga manqué ɓe mbiɗo manque eɗen jam kinga manque le mbaɗa manque ñinti mona wawi nekkul le gouvernement ɗo ɓe goɗo trala gouvernement day ñew jeel alal ɗi sédele ko banque buka développé o ña ɗon ley moye développé banque le développement ɓe ɗen ɗi munna mona li nga xam mooy were développement réew sénélaɗo ñi bay seno ibe seno mun ke bay bi ñuy bay feere mun be man kerin ge nga ma euh, wala gouvernement mi jàppale ma wala gouvernement mi yeggale leen daar liggéey feere mun be man kerin nga ma wala li nga si métier karan lo ñu entreprise tugoolu borom entreprise wala su habarul créé mu ne ñu créé ay ay liggéeyul ma jox leen solution pour kol bundal créé ɓe ñamin nu ubbi ay buntu liggéeykaay a kiitolo ha siya mune ate bëri nañ banque la développé kon développement réew ɓeena participation participation ñëpp ci ci war a bokk banque la développé ngir réew mi mun a fi mi jeexale mbe président président a ah, hakkiloto daarangolu to mu borom borom daara yi borom daara yi te la diino mu ne suñu diine eh, a taman seero mu ne eh, mandargam wala mu londo mooy xam-xam wo londo xam-xam boobu wala kaaɗoɗi kaɗo gonɗi moom moo koy liggéey moo koy yóbbu kanam ne culture o mu sunu culture nag a taman seero mu ne euh, mandarga bi mooy. diino la diine ji. nañ te la diino. suñu diine. wala mun na culture mooy suñu culture. nin daara développé ta. mu ne suñu développé daara. diino bi développé la diine bi développé. nin daara woon développé. bu daara bi développé wul. diinoon te développé noonu diine bi mënut a développé. sa si hakkiloo tuwal to xel bu baax. si hakkiloo tu fanan. ngeen bàyyi xel yi tamit. Eh, banko ñim ma. réew mi tey. goliyaa be keering jafe-jafe la de. ku kooku si kool terandino lépp loo xam ne mun na gaawal mbir yi yaha dunga la ngeen góorgóorlu ci loolu yaha katoo fanan ke ngeen góorgóorlu yi tamit tingaaroo mun kete jam yàq-yàq yi fi nekk inta be tuuno la jee mu munu leen bàyyi lépp bar ku moo doo jam fata mu ne waaye am na wax yu sori sariya ya mun fo li sariya wax anani amnestire kuwoto ci waru amnistie ndo falade mu ne dinañ ko wax parce que sariya ye mun fowoto mu ne sariya lim ci wax foog koo dookundi foog ñu def loolu nag ala sogo annab sago gannaaw yàlla seen sago ba Sénégal banko bee taraara mu ne mu ngi ñaan sénégalais yëpp mu ñoo la ngeen muñ nga di nuwal tujee ñu jiital xale yi yee doo kuwa ke ñu jàppale leen ñu liggéey ngay ngay deema ñu jàppale leen moomoo si deema koo xam ne mën nga leen di jàppale jàppale ko yee doo kuwa ke ñu liggéey mbém moo bee invité la mu ne mu ngi invité mu ngi ñaan la yàlla nañu déggoo mbe ala taraala mu ngi ñaan yàlla xal monsieur Sima yaa yàlla may ñu fan wu gudd gouvernement ñu yéeng gouvernement bii aminu kanu lépp lu ñu sopp fal mun sowo kay yàlla defal leen ko fal mun so xayroo jigi yàlla yokk réew xew xewal ci réew mi Sénégal banko ci réew Sénégal bi wama zalika wama zalika alallaahi alallaahi bi aziz ya aziz inna zalika inna zalika alallaahi yasir yasir subhana rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalam wassalam wassalam ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin العالمين بارك الله